aus billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh yoo ngi nuyu bokki jullit yëpp bokki taalib bi yëpp bokki dëkkandoo yëpp ci turu sëriñ Cheikh Mbacke sëriñ Abdou Latif ak njaboot sëriñ Abdou Latif yëpp ci turu soxna Faati ak rakkam yëpp ñu ngi biir baas bi jiite njaboot bi li ñuy wax ci turam nañ koy xam soxna Faati kon nee mi ngi leen di nuyu leen sant bu baax di jiital cant gi mbokk yi ndax wàcc nañ mbokk it mënta weesul mbokkam lii mu xewle mu ànd ak moom ca waajtaay wa ca yëgle gi ca nekk ba lépp daanu kon jërë ngeen jëf bu ñu amoon kàdd gu gën a kawe jërëjëf dañ leen ko wax kon nag jërëjëf yal na yàlla fay yàlla bi déele woon ci ak bokk ne ku ko sàmm ak ku ko jokk mu jokk la ku ko dog mu dog la yal na leen jàkk sàmmal boppam ci barke Sëñ Tuubaa di sant mboolem taalibe yi ak daayira yi nga xam ne ñoo yore liggéey bi mu agsi fii ndax du liggéey kenn fi mu daayira mën a nekk ak fi mu taalibe mën a nekk nga xam ne bu ñu tàbbalee bis ba tey ñi ngi ci di ko waajal bi mu agsee ñu nekk ci ak ñoom ñu ngi ci leen sant bu baax di leen soññi bu baax sëñ Seex am na ndigal yu bari yu waxoon jëmewuñ ci taalibe bi waaye dañ fa bàyyi kilifa yu mag yi toog duñu xaar yoo xam ñu leen a der rek ci loxoy nen koo tax wax ci xam naa ginnaaw bi dañ leen ko jot incha allah di soññi ñëpp di liggéey bi rawante na daayira bii nga xam ne mooy daayira surtout sëñ Abdou Latif ñoo yore waajtaay wi ak doxin wàggale bi waxoon naa leen fii daaw jéegi ne leen mbooloo yi sosu bari na ci waaye yi ci yàgg néew na lool bu demee ab diir dana tàqale ko la koy tas dana poire lay doon lee xaalis lay doon lee ak taayeel lay doon lee ñàkk fonk lay doon kon nag na ngeen fexe lii bu mu leen dal yéen waxoon naa leen ko fi daaw jéeg wax jooju yéen dinaa di ko wax ndax sos ngeen ko waaye ab jéegu doxagu leen ko nag fa ngeen ko sosoon ba tey fa ngeen taxaw te ku yokkut da ngaa wàññi te doxagut ndax waroon naa romb fii bu yàgg kon ñoo ngi sant ñëpp di sant ñi nga xam ne bi ñuy waaj yëf yi ci ñoom seen loxo lañ ko jaare woon mooy média bi rawatina rajo Lamp ak rajo Benno bi nga xam ne Mor Talla ndax kenn ñoom muy Mor Talla ak Fallou bi ñu leen woo kenn ko ne ko def sëf yi pëp du xaalis bu ñu leen jox du leen jox ci liñ ci fere ñoo xam ne seen seen yëfee ñu ne noo bokk bis bi li ci war dañ ko def di ko yëgle di fi yónnee ay ndaw di woote na ñëw leen def si neewaa na ngay gis ku naan ñëw leen def si ay nit ñoo daan jóg ne dañoo bëgg ñëw def si émission waaye ñoom dañu woote ñëw leen def kon ñoo ngi leen di sant bu baax di sant ñii fii ki leen teewal maxtaar ak maam góor bi nga xam ne seen njabootu bopp lañ ci lañ bokk ñoo ngi leen di sant bu baax sant ñi doon def waxtaan yépp Moustapha mii bëgg naa ngeen beral ko sant yéen waa kër gépp te jàppale ko Moustapha Dieng ndax li ñoroon seen maam mi ngi ci mooy dundal xam-xam ci dëkk bi jàng ak jàngale mi ngi ci di jàppale ci ci ndigalu Serigne Cheikh Abdou Latif it la koy defee lu ci nekk bi ko baare di béyee nuyoole ko wax ko ki mu doon it la ko joxoon digal mu dëkk fi di jàngale kon ngeen xàmmee ko te xam ne mu ngi leen di jàpp ci li nga bëgg noonu toog ñëpp ci daara ji di jàngale tëlu ko mi ngi ci mi ngi leen di defal loola kon ngeen ko sant te jàpp ko jàppale ko bu a baax eh, seex li ci des ndigal li des seen ci yow ci mott li kàddu yi santal sëñ seex mbokk yëpp ndax mbokk yi wàcce nañ sas nañ ñun ñëpp cant la laaj ak yëg ak jàpp ba gën a nga santal ko bokk yëpp santal ko taalib yëpp soññiwaat yére bii nga xam ne ngeen moom ngeen sosit nag ba jéego yi gën a ko bar ndax barut dañ fa bàyyi lu bari ne ko jot li ci lu bari bari ñoo ngi leen di sant waaye donc fi bàyyi ak sëñ Abdou Samad bu ñu noppee mooy def ñaan gi ndax noo noo ci yem noo ci yem benn at noo ci benn at te mi ngi fi toog booba tey kon ñaan ngi sëñ moom la sëñ bi jox ndigal ma def ko bi wax ji àggee dañoo nañ fi teew rek jot lay kàddu ngeen àggal la ngeen wax bu ngeen noppi sëñ bi sama def ñaan gi ñoo ngi jëlee ñëpp sant ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah